lu seen àndina ak la meilleure chaîne di net ñu lëngoo tey ak suñuy doomu ndey waa Sénégal Buzz 221 xam ngeen ni euh, baaxoon nañu lépp luy actualité tolluwaayu jamono ak doxilinam ñu ci waxtaan ak moom suñu papa suñu sëriñ suñu référence du ñu ci lépp loo xam ni rek jaadu na askan wi dégg ci kàddoom ñu koy tàllal micro euh, ngir sàkku gi nga xam ne yéen a ngi koy sàkku ñuy am ak moom jotaay mbégte lay doon saa ne euh, ñuy am ak moom jotaay tey nag wéetuma ci ak waa Sénégal la ñu lëngoog yow Oustaz mbégte kontaan lay vraiment disponibilité bi à chaque fois rédaction wu euh, Senbuzz soxla ko ak sénégalais yi soxla sa kàddu nga may ñu possibilité ñu am ak yow jotaay. waa waaleykum salaam. Oustaz ñu ngi lay nuyu di nuyu sunu xarit yëpp caméraman yeeg laajkat yi ak déglukat yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di ñaan yàlla may ñu yegg ci tabaski kee jàmm wees koog jàmm di fekkee ko at yu bëri incha allah. Euh, jërëjëf yow Oustaz maa ngi nuyu sama doomu ndey tamit Alaaji borom Sénégal ba 221 ak euh, le directeur général Mame Ali alors yow euh, ci liggéeyam lañ ko fekk fi ñuy jeexalee yaa Oustaz am na coow lu judduwaat xaw a méngoo tuuti ak woote nubu watu maanaam kuy woote yonent ndax li ñu baaxoo ci wilaaya wala ci yonent rek lañ ko mës a gis muy ku xar géej gi am koo xam ni nag génn na yëkkati ay kaddu daal xam leen ni dina ko def te dina ko defal Sénégal ma la doon laaj tamit waxuma taxawaayu diina waaye ndax yàlla dina may nitu ordinaire ku mel ni sukkandiku ba mën a def yenn kawteef yu mel ni xar géej ak euh, xar weer ak yu ñu mel ndax nit moderne mën na ko. waaw moom bu ko xaree lum ñu jëriñ. day wane boppam daal maanaam ci domaine bi mu nekk. waaye laaj lum ñuy jëriñu yow jëriñu la jëriñu ma bu koy xar na dem toog xar moom dong ñun dañu am ay liggéey ñun taluñu ay géej xam nga lu ñu xam ci géej. moo li dugg génneen ñu jën ceebu jën baa ñu def yaasa baa ñu def fiiriir baa ñu def lakk jën waaye xarum géej waysal bi xaaru fujirat bañ ko jàngee kañ na yàlla nee na danaa xar géej gi géej yi ci àdduna bi yëpp ma boole ku muy benn ñu ñu song kër yi lépp lab booba la nu gëm buñ ca yeggee yàggatul danaa buñ ca yeggee na xar waaye dana weddi ah man de du ma ndax man géej gi may sangam mhm. ni tey sangu ndox xanaa sëñ Tuubaa mi ci war <laughs> julli jon mu dóor deram ci kaw julli ci kaw ànd ak bato bi dellowaat der bi dugg ci biir julli jotaan mu génnaa def ko ti labul ti bu sujjooti suuf ne ci jéem xanaa bamba kay waaji yi bamba def la soxla kum ko defal yàlla ak aqimoo salaata su julli jotee julli leen sëñ bamba julli ci géej aller yépp ñun boobu lañu ñu saf booboo nu saf waaye ñëw leen ma xaral leen xaral ti jël boo ko xaree rek jël ko yóbbu waaw ñun ay xar gi doxuñu ñun li ñuy dox mooy li du Bamba def abu mais congaan congaan Sénégal yi nañuy xalaat nañuy xalaat nit defar bato teg ko ci ndox dugg ca dem sëñ Bamba jël der teg ko ci ndox dugg ca ngeen du dëgg ti nga gëm li yéefiir bii def te gëmoo li nitu yàlla def xam nga ne da ngay fen ko la ko wax day fen laa wax man na gis nga lu ma la wax nga dégg ci loo ma wax duma ko dégg ku ma dégtal waxu nit wala nga laaj ma waxu nit ma bala keroog boo bëggee dund bu neex mhm. bul déglu la naqari mhm. bul gis la naqari mhm. su ko defee da ngay def ko non non li ci beneen stress non. stress ak non. stress déedéet souci. non souci ah. man dégguma nag oustaz dégg nga de nekk de. yow dañ ko laaj ay borom xam-xam yu bari ah rédaction Senbuzz liggéey nañ ci ndax gëstu ne maanaam ay turu yàlla mën na ko may ni ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba taqwa ak wilaya moo ko ko mayoon ku mel ni le prophète Moïse bi nga xamee ne xam nañ ko nubu watu moo ko mayoon loolu c'est euh, laaj bi mooy ndax nit koo xam ni dafay sukk ku rek ci turu yàlla yenn secret yi li ngeen di wax yéen asatide yi ndax mën na xar géej secret day xar géej wala wilaya moo ci ci lu ah, bay ni wuma barzaxun laa yabqiyaani est-ce que xam nga ne dex ak géej nii lañ def léeg-léeg dex gi dugg ci géej gi yendu fa léeg-léeg géej gi dugg ci biir te bii daa saf xorom bii daa neex te mënoo fexe ba géej li muy saf xorom yëpp mu wàll dex booboo gën a yéemi laaj ma beneen toolu ñaam bi bi nga bay nga suul benn reen dem ba jamono nga buddi ko fekk ci taat fukki reen nga xolli ko róoti bant ya nga jëmbataat xob ya nga jox mbaam yi bi yee gën garaaw te jigéen ñaa ngi koy def yow mi bay toola nga koy def xar gi du dara jàng woon eh, idrib bi asakal baxara fan falaxat loolu nuñ koy jàngee di déglu jigéen xanaa kon gëmatuñu alxuraan Ablaay yonent yàlla Muusa bi ko waa Israël di dàq mu fabu di xuus géej dafa ànd ak fukki kuréel ak ñaar douze personnes douze kuréel te kat congaan kuréel bu ne du laal moroomam mooy li xew assemblée kenn du laal sa morom te bu ñu bokkee benn yoon mën nañoo xeex baa ñu reyante bañ fekk leen firaaw na fekk leen xam nga nu def bi mu ñëwee ba tiim géej gi dafa tiit ti firaaw naa ngi ci gannaaw dinaa la mudrikuuna mu ngi naan ah waa kër firaaw na danañu dab de yàlla ne parte rek xam nga yàlla du def ti def jotu ndax bu bëggee def kenn dootu def ba ñëwee ba ci tefesu géej gi Muusaa taxaw ak fasam firaaw na di ko uuti la yàlla doog a yebal Jibriil ne ko waddal gaaw soo demee jëlal fas wu jigéen wii nga sësale ko fasu firaaw na ndax góor la su fóonee awraam rek fas wee ko itteel nga xuus ndox mi mu topp la mu cëppal ko rek mu ne ko dóoral yet wi gaaw mu ne ko ci géej gi tay mu def fukki yoon ak ñaar douze yoon ñun loolu lañ gëm yi ay tappal caaxaan la rek douze douze yoon mm-hmm. benn ustaas ñi mewu ko wéet fukki yoon ak ñaar la xar jibri ne cëpp mbooloo ya ku ne groupe ba nga àndal ngeen tegee ci yoon fas wi ne cëpp fasu firawna wi fóon awra bi xelam nekk ci firawna këdda fasam eh, jabrayil këdda fasam rek mu xuus ndox mi ñu daw ba xaajal Firawna ne fëppit naaw ak fas yàlla këpp ndox Jibril ne fëppit naaw ak fas wi Jibril fëy dem wuy yàlla yàlla këpp ndox mi Firawna reyu ko de da koo bàyyi ba mu ba mu dee mu na ndox mi tuural ma ko ci biti mu gëq ko boo demee Égypte ñu wan la ko ba léegi Firawna nga fa ñu koy def ay produits bàyyi ko danoon yàlla la yàlla wan nit ñi ne day kàcc yàlla ju dee amul kenn mënuñoo xaral géej gi di am leen bu leen am jot waay bàyyi leen yooyu ngeen di déglu mhm. jeexale rek yaa oustaz damay sukkandiku ci li alquran di wax rek waqul li ibadi yaqulu lati hi ahsan euh, képp koo xam ne rek euh, sañ nga wax ci nit ki li la yàlla sant mooy nga wax ci moom lu rafet ma lay bu baax si tur rédaction bi ndax xam nañu maaw xiif position bi nga xam ne am nga ko ci société bi di seedeel askan wi rek dama nekk ndaw nekk ci yoon mu dooleel ma lool euh, daaw ci tabaski bi dafa yëkkati xar jox ma ak xaalis bu baree bari ma la ciy ñaanal di la xamal ni ren nag dafa ànd ak ay 3 allah rabbi <laughs> jeexalee xam na suñu donteen oustaz sonn na rek ay kaddu yu mujj kaddu yu mujj combaan comme ni nga ko waxee rek ginnaaw bu ñu ko gërëmaatee bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko si ñun ñi nga xamante ne tey ñoo di presse en ligne bi ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax a baax mais oustaz ñu tëjee ci benn kaddu rek muy fan yi gis nañ li nga xamante ne moo di sëriñ yu tarixa yi bëri nañ macha allah ci réew mi mais dafa am polémique boo xamante ne dafa judd seen biir muy tontante ak waxante li nga xamante ne tey mooy lu ñaaw mu mel ni ñàkk déggoo dafa am seen biir te nit ñi soxla leen ci li nga xamante ne moo di faj aajo ak faj soxla wax naa ko kële sëriñ Assane tuddee na ma doom gis nga sëñ bi koo defal lu baax dégg mu wax la lu bon baa mu def la lu bon bu ko mere loolu la am ko mere loolu la am nit mënta maye lu mu amul gis nga ñuy saaga nit ñi loolu la am te am na ci ñoo xam ne seen baay fase na seen ndey bu yàgg ñu xuloog seen baay tuddantewuñu moom dànd ko ba seen baay dee te waxuñu ca gis nga koo koo gis mu naan la defaraat sa sàgganu wi moo la gën a sàgganu kon man di ñaanuma yàlla congaan falu ci deru nit xam nga loolu wax ci nit lu ñaaw ba nit ñi bàyyi ko pour man ñu téye ma yal na ma ci yàlla musal Serigne Cheikh nee na nii la def loxo bi na bëgg sama der du ma tax a taqal deru tax a taqal deru góor te am moo bëri ci jamono ji te am na ñoo xam ne seeni sëriñ leen jël ñii boroomi alal jël leen ñii seen parti politique jël leen di leen mosal ni leen mbawu leen ni xaj di mbawee mooy mooy bandi yi saaga ci télé ak rajo yi ak journaux yi am ñoo xam ne seen sëriñ leen jël def leen mbaam ñuy ŋaaxal seen sëriñ ñii ay xaj lañu dañuy baw ñii ay mbaam lañu ñu dañuy ŋaax ah mbaa wa inna ankaral aswat ah loo waxuma ko de yàlla nee na am na nit ñoo xam ne ñoo représenté mbaam dañuy ŋaax am ñu représenté xaj dañuy mbow am ñu représenté zéro dañuy yàccaaral donc yow da ngay jëbar congaan day ñaanalaate donte sax dugal na fi benn woyaan bu sew waaw waaw <laughs> dégg nga eh, xam nga. yow da ngay mu ngi mel ni parti politique yi. oppo opposition bi rek mu ngi mel noonu. kenn ku ne boo xëy yaa ngi campagne. mais gëmal yàlla rek ne luy sa wërsëg da nga ci jot. mu ngi mel ni géej gi. mool yëppay dugg rek. ku ne gëmal yàlla luy sa wërsëg da nga dajeeg moom. mais sénégalais gëm a ko dese. gëm yàllaa ko dese. man de barke alquranul karim la Pape Tafsir Alsaan Mbaye waxoon laa lay na bu dee xaj boo jël mu mu mu mbaw la. yàlla sa xaju baay. waaw Tafsir Alsaan Mbaye ko waxoon góor nee na bu dee xaj boo jël mu mbaw la jëla sa xaju baay waaye kay mbawal ma. kay saagaal ma diw. kaay xasal ma diw. kaay sos joxal ma diw. xanaa xamoo ne lu bon loo wax ci nit. ñu jël sa jaamu yàlla jox ko. ñaata jaamukaay yàllaa nekk Sénégal ñu bokkul ci diine islam est-ce que danañ jumba tudd Muhammad non non donc kon liggéey bi ngeen di liggéey wax ju ñaaw du ko sottal maa ko yor ak yorul leen kenn ko yorul ci yéen yàlla yorul lépp kenn yorul daara bàyyi leen maa ko yor góor góorlu leen ñu bokk sunu Sénégal defar sunum réew di waajal sunu tabaski ci ñuy julli ji julli ji te ngeen bañ ci xuloo te njàppoo nekk benn man nag may noo stress may noo souci Iran Ndao merci beaucoup. merci beaucoup macha allah oustaz Isa di kontaan bu baax a baax a baax ci dalal bi nga xamante ne dalal nañ ko mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen numéro ca jërë ngeen jëf.